mu nekkoon combat bi nga xamante ñëpp moom lañu doon waxtaan waxtaanee waaye itam di ko xaar kii di Reug Reug daal dinay daan Aly nii jël bu kenn dootul werante ndax gannaaw ba ñu songoowee ci diirub juróomi minute la ko daal di daan par kawo mu nekk ñaareelu victoire ci ñaari match yoo xamante am na ko ci wàllum MMA mu mel ni kon champion Sénégal bile mi ngi daal di def carrière bu am solo ci lu jëm ci wàllum MMA. moom Omar Kane ñëpp jàppoon ni ki nga xam te moo di Aly ni daal di jël lu tolloog ñeenti yoon li nga xam te moo di championnat du monde ci wàllum kickboxing waaye itam lu jëm ci wàllum muay thai nekk benn boxe thaïlandaise daal di nay am kon li moo di défaite euh, ci rëg-rëg bi nga xamante mi ngi ci ndorteelu carrière euh, ci lu jëm ci wàllum MMA bi mooy ñaareelu combat am ci fàttali bu njëkk bi décembre 2019 la woon mu daal di daanoon kii di Sofiane Boukissou fii ci Ndakaaru